asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp ci turu Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg te wér. di leen nuyu ci turu sëriñ Mor Fati mi xalifa maam Cheikh Anta na fi yàgg te wér di leen nuyu ci turu uh, sëriñ Abdul Qadir xalifab Cheikh Mouhamadul Maamoun mi nga xam ne mooy jiite màggalu Daaru Salaam yàlla na fi yàgg lool te wér di leen nuyu ci turu sëriñ Mbàkke Anta di rakki sëriñ Mor Fati di leen nuyu nag ci turu njabootu borom gaawaan gépp njabootu borom gaawaan gépp njaboot gi ak taalibe yi njaboot gi mooy taalibe yi di jégglu màggalu Daaru Salaam buñ ko daan waajal dañ koy teel yëg lool waaye ren ji li tax mu demee nii nii at mi demee mu tax xew-xew bu rëy bi xew ci àdduna ba tax na Euh, mboolem màggal yi fi jaar euh, nun dama mënta def màggal wala nu def lenn te ñëwunu ci sëriñ Touba sàkku ndigal te ji nag bi Sëriñ Abdou Khadir ñëwee ànd ak nun taxawaale taxawaayu sëriñ Abo nu jàkkaarloo ak sëriñ Muntaxa mu wax nu ni ko bëggee sëriñ ji li wax na ko depuis 1914 liñ fi jàng ci ay kaamil alxuraan 2014 kaamil li alxuraan dañ koy jàng ci màggalu Daaru Salaam lépp di ko def addi sëriñ Touba ak maam Cheikh kon nag lu mel noonu réye noonu mënee su koo def ci diggante Daaru Salaam ak Touba ci amoo ci ndigalul sëriñ Touba loolu moo tax. tey ji ñu jàpp bis bi ñëw ci sëriñ Tuubaa sëriñ Muhammadul Muntaxaa jox ndigal sëriñ Abdul Xaadir mu ne ko noonu yoon ko daan defee rek di jàng alxuraan ji na bu mënee dolli ko sax na dolli ko bu mënee dolli ko sax na dolli ko mbooloo mi mbooloo mi daje daal moom laa bëgg ñu ñu moytu ko daayira buy siyaare si mën nañoo daje yebal ñaari nit ñu ñëw siyaare te te mbooloo mi ak ndaje yi xumb-xumb yi ñu ñu wàññi ko ñëpp mën nañoo siyaare waaye dañuy dañuy bañ a daje dañuy bañ bokk daje kenn ku ne la nga daan def ci màggal gi mën nga ko def waaye nag dajaloo gi moom moom lañ ciy bañ kon kenn ku ne la nga daan def ak la nga daan jàng mën nga ko def mën nga ko jàng sëriñ Abdou Khadre nag ku ne xam na ne na ko sëriñ Modou Mamoune bëggee woon rek jàngkati alxuraan yi ñoo ko gën a ñor mu ngi woo mboolem daara yi alxuraan yi nekk yi wër Touba ba njaareem ñëpp ñu ñëw lu ñu mën ci njàngum alxuraan ñu jàngale ko ko ñu ñaa ñaanal ci Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér moom dong lan doon nekk baatam la doon déglu moo tax mu yéex wax ci màggalu Daaru Salaam kon nag màggalu Daaru Salaam fukki fan ak benn lay doon ci weeru juillet di taseeg bisu gaawu taseeg bisu gaawu waaye sëriñ bi nee talaata la ñuy tàmbali njàng mi la di la sept ci weeru tubaab la onze di màggal gi mboolem taalib yi ñu dégg ko noonu sëriñ bi nee taalib yi mën nañoo ñëw siyaare si waaye buñ ko def ay am am ndaje mu xumb waaw par par ñaar par lim bu néew daal ngir li xew ci jamono ji jamono ji moo tax kon nag ku ñëw ci màggal gi wala nga bëggoon ci ñëw yàlla la suñu tubaab musal ci mbas mi nga xam ne dafa daj àdduna te yàggal fi sëriñ bi yàggal fi Cheikh Abdoul Khadir kon nag jox Cheikh ngi nuyu mbooloo mi man Jili Mbàkke doomi Serigne Modou Mamoun ci turu Serigne Mountakha mi ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant te di leen xamal ne noo ngi fi ñëw ci ndégalul sëriñ Mor Fati mi fi nekk xalifab sëriñ Gaawaan ñu ngi ànd ak Mbàkke Anta. ànd ak sëñ Mamour Tuwaatul ànd ak sëñ Cheikh Anta ak sëñ Am Sikab danoo ñëwoon nag laaj si ndigal sëriñ bi bi nu ñëwee it xamal nañ ko su suñuy jéego lu mu doon leeralal nañ ko ko ba mu xam ko bu baax xamal nañu ko ne ko 2014 ak léegi jàng nañ fi juróom benn fukki kaamil ak ñett ak ñeenti téeméer ak fukk loolee nag moom lan bëggoon a yeesalaat ndax gannaaw ñu ngi ko tàmbali woon de di ko def ba fi mu nekk nu doon laaj si ndigal loonu ci sant rek ñu def ko loolee nag jox nañu ci ndigal ànd nañ ceeg moom nee na it maanaam mbooloo mi nu ñuy moytu dajaloo bi ginnaaw na nun ñëpp noo ko déggandoo fu taalibe nekk la la waroon nga di ko def wàccu la ñu ngi leen di gërëm di leen sant jëf